عربي والعظيم réew moomu yàgga noot jigéen nangu ay àqam yàgg ko tuumal yàgg ko beddi ba ku ci mënal sa bopp financièrement menace ngay doon ku ci xam sa droit te di ko exiger menace ngay doon bu demee ba ñu mën a jàpp journaliste bu jigéen bu investir lu ñu toll ci réew mi ci ay emploi di ko fay ci taxe mën ko tiim def ko noo xam ne doo ko def sa xar mu am borom yu ask the question ndax war nañoo bàkkoo pays de la Teranga réew mu jaxasoo ba imaam yi doyatuñ kenn xalif général bu ne xamal ne la ñaawteef président loo liggéey ñu ne baaxul jigéen tekkiwu fa dara même xale vitamine yi gën a baax ci digg ndab li mu war koo lekk ngir yaramam dëgër ñu ne la xale du laal digg ndab li di bàkkoo woon njiit ci démocratie Afrique journalisme nu mu amee importance kenn mën a def sa liggéey boo waxee dëgg den laa jënd wala den laa corrompre Cheikh Yérim Seck mu ngi dund di jot ay menaces plus de ans kenn taxawut ko Madiambal Diagne même chose tey may Maïmouna Ndour fay la moom leen def ni ma la ci digg dëkk bi kenn rusul kenn ragalul li gën a métti nag ay julli toog di ndamu di bàkku sant yàlla ci ndokk bi dal jigéen à, cause de, à, à nom de quoi in the name of political dispute ndax yow ro ak bokong ak mom gis-gis ta nga ne julit nga na ne ummati rahma <laughs> wutee ci suma xet wi yërmande la moo tax sëriñ di mourid Maodo di mourid te yakku mbok bok yakku der yakku and fagn yalla la lañ bokku yalla la ndax nunu mel daf ne Rahman bañ foog ne noonu la tuddu mune ne ne xayyu bañ foog ne kenn du dee kon ku xam yàlla wuteeg doomu adama du tax nga bañ ko bakoy sosal ba koy rëbb ba jam ñu wara a joxoñ baraamu tuuma ñeent fan la nguur gi nek gis na son excellence Moussa Macky mu def tweet di lu li way ndax doyna journalist yi bëgg neen leneen lu ëpp Twitter gis nga réew gouvernement du dara lu mooy sàmm nit ñi ak alalu nit ñi soo amee benn nit koo xam ne ci yow sa société dañuy jël tànk doole tànki tuuma tànki xaste tànki ñàkk liberté teg ko ci kaw jigéen am jigéen ju fipp ba dajalay diplôme nekk journaliste investir doon jàmbaar te lépp luy ñëw ci réew mi lu importance fa leen koy waxee ci moom yow président de la république sa liggéey lu mu rafet rafet bu ko journaliste wanewul du feeñ buñ ko waxul nit ñi duñ ko dégg booy wax sax ñoom ngay woo ana say soldat <laughs> ana say gendarme parce que du seen rôle sa message in the Senegalese population ki ko mën a jàllale mooy journalist waaye ñooñu bu ñu demee nag ba nekk insecurity in their own country ci seen dëkk fu ñu juddoo mu doon seen fierte ñu investir ci ak def ci seen temps ak seen alal ak seen lépp dem ba nekk menace ci réew moomu dafay jaadu nag député yi niñ leen di fonkee di leen protéger dafay jaadu commando yeeg général yi ni ñu leen di protéger dafay jaadu xalif général yi ni ñu leen di protéger dafay jaadu yow son excellence monsieur Macky Sall gënoo kenn ci ndey ju baax ak baay ju baax institution bi la ñu fonk muy de présidence ak yow président noonu la may mun a amee droit ci ñu protéger ko comme niñ protéger woon télé ba bañ menacé ne dañ koy lakk ndax alal la ci réew mi buy fay taxe protéger ko du may mun a nga protéger waaye alalu réew mi nga protéger parce que bu la compter taxe yi muy fay du ko fay courant yi muy fay du ko fay emploi yi muy ko fay ku mel noonu nag su demee ba nga xam ne her life is in danger she deserves to be protected waaye nag journaliste sénégalais lu leen dal daf leen mooy ndax kuy yàq sa morom ci ñoom ngay dem ku bëgg a yàqus gor ci ñoom ngay dem ku bëgg a jaay benn agenda bu dul dëgg ci ñoom ngay dem même sëriñi tariyaax yi di duulaka ndax doomu aadama yi ci ñoom ngay dem te journalisme dama ne mu ngi commencé ca ësal boobu alxuraan amagul journalisme mu ngi commencé boobu aljanna amagul ndax yàlla sunu boroom xibaar bi jibril la ko daan jox mu def ko revue de presse nit ñi jot ko bi lépp amee ba lépp am yoon parewul moom yàlla di moom yàlla di def jibril journaliste muy indi mission di indi bataaxal bu jógee ci moom métier bu noobul boobu nga xam ne malayka ko njëkk def ci borom bi leen njëkka a jëlee xibaar jox ko malayka yi ci borom bi leen njëkk a jëlee xibaar jox ko jinne yi ci borom bi lañ njëkk a jëlee xibaar jox ko doom aadama yi yonentu jëlee xibaar ci borom bi jox ñu ko yonentu mission ci lislaam lenn képp la jëf ñu gis wax ñu dégg ñu jox ko ndigal mu dig leen ñu jox ko ndigal mu tere ñu ba kepp métier bu riche bii nga xam ne su ñuy wax démocratie journalisme bokk na ci quatre piliers yi gën a fort ci journalisme Sénégal nag jaxasoo na ba mel ni dayu bëyeeg démb xàmmewuñ présente creator créateur présentateur ak présentatrice journaliste investigation ak journaliste économie xàmmewuñ benn ku xëytee sa micro rek di laaj laaj yu dof laaj yuy tardé réew mi laaj yu demul fenn société bi ñàkk fayda waye di ba fee di weer moo leen gënal développement wu ëllëg ngir seen njaboot société bi ñak fayda ba li leen di bëggal seen xol mo leen ëppal njëriñ li dalal seen xol ci réew mi ëllëg ku feebar uti fo fajo ku am alal génné ko réew mi denc ko ku bëgg jàng réew mi these are issues we need to address and tackle for better Senegal. buñ bëggee Senegal lu ëllëg bu naat bi ñuy rêvé président tek tank bi Amadou Ba 5e président war ko motali ah amna na neneen lu ñu nu dut nii mbir nag bu xewee dañ ko war a jël càmbar ko ngir ëllëg gàttandu ko bu mu xewati waaye su fekkee ne ñun ñëpp dañu nangu ne réew mi da am na loo xam ne mu ngi dem jaarul yoon am na loo xam ne du dëgg ñu bëgg mu am ci dëgg lépp lu dul dëgg même sa noon la dal danga koy bañ ci dëgg waaye yow li ngay bañ ki nga bëgg ak ki la arrangé li la arrangé képp nga ko mën a bañee li la arrangé wu lu ci xew tout That's not the way it should be. Ni rek la wara a wala ni. wala ni. mais tay ni la suba ni la suba ni la mënta dem mu am lu tay suma xel moy da timing dañu xaar ba mu recevoir farbangom Ngom ba paré ñu dor ko agresser. Moy wané né ñi def luñu tayil luñu bëgg la ndax su fekkoon ne ca yeñ njortu ne moo tax ñu agressé ko leen ko defee dañuy xam straight away kan la mooy bukki bu ñu dénkoon yàpp bi moo ko lekk mais dañu xaar ba mu génn foofu mu invité Farba Ngom xel yépp jàpp ne Farba Ngom amul intérêt ci agressé ndaw si amu ci soxla ndax lañuy tuumaal ndaw si mooy Macky Sall ak Amadou Ba lay jàppal tànk nguur gi la faral ñu door koo agressé ba bunti këram gàcce nga la ma may mun a agressé wuñ ko ci baar kon mu ñaaw agressé wuñ ko kër jàmbur kon mu ñaaw liggéeyukaayam këram na ci jigéen ñëpp royee gàtt tànk waaye nangu tànk waaye nangu dogalu borom bi ku ci war a taxaw taxaw ci ku ci war a wax wax ci these are things we need to address in our society for better Senegal Mm-hmm. Mm-hmm. li gëna daw yaram ci mbiru Maimouna Ndour xam nga man dama ko xam personally <laughs> motax suma su nit ñi naan yow yaay xam ki yow yaay nangam Sénégal amul ku fa tekki dara te xawma ci diine ji ci aada ji ci soldaar bi ci société bi ci économie bi ci journalisme bi moom ak Cheikh Yérim Seck ñoo gën a nekk suma xarit xarit laa wax bi nga xamee ne coow am na bañ daan jullit du ñaanal chrétien chrétien dina ñaanal jullit mu ne ma Cheikh Ahmed li nga wax dafa ma laal man suma yaay chrétien la ay bi ma jëlee lislaam am na wax yu ma suma mbokk sànni ñu ne ma yaa ngi bàyyi diine bi sa yaay nekkoon muy église bi di dem nekk jullit duñ la ko tere waaye lépp lu la naqare ci kàddu ci réew mi fii ci jullit ñi nga koy déggee lépp lu la naqare ci jëf ci ñoom nga koy déggee ñaata nit a mës a menacé may mën a ndur fay te fekk ñu duñu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alayka wa sallama ñaata nit la xool leen ñi rafetlu li ko dal ak ñi ko doon tëkku ku ci ne jullit nga te am nga kër diine boo bokk ci senegal moo tax kuy def jéemal lu baax boo mënee boo mënut nga bàyyi lii ma nettali ñu bari xamuñ ko ci yéen tey mbokk yooyu doonuñ jullit doonuñu jullit toog tey war a seetaan ñu def ko lii yàgg toog ñu koy menacé ci digg réew mi te ay jullit di ko def ndax yeewuñ may mun a ànnaam yeey neen ko I don't sugarcane my words <laughs> no filter take it as you heard su ma wax duma ko suukar du ma neexle parce que ragaluma ku ma lor xeme mu ma ku jox ba duma wax man li ma sentir jëlee ko ni nga ko déggee te ñun ñëpp den naan islam bonul ñenn ci julit ñe bon wa su fekke ñenn ci julit ñu bon mënuñ leena adresse comme ay nafex ak ñu bon ñëpp ñu bon leen ci julit yi kon su julit defee dara den koy adresse l'islam moy mandu fokk ñu differentiate things il faut ñu différencier les choses julit bi bon di def lu bon koku lan la fokk mu leer bu leerul ñu bayyi ñëpp ne julit leen rek buñ dara den koy adresse l'islam way ndax ndam la ci xalif general ci rew yi ak yow mi may deglu ta doon julit may mun yaayam du julit mu dugg ci l'islam mbokkami garal ko kaddu nako yaangi bayyi sunu diini di dem way lepp lu la nakari ci rew mi ci ay menace yoy jot ak wax bu ñaaw juliti ñoo la koy wax du ñun chrétien te ëlëk lu la ñoo def ta ki def li jus ba ba bi mi feñe man dama japp ne julit kenn ci ñuy wote wo l'islam la <laughs> da ngay wax deug nak nit ki deug deug tournewiir kii noonu lislaam dafa am ay lobby nekk ci ginnaawam naa feq la nangam la nangam la d'accord man naa feq la ay lobby nekk suma ginnaaw dama al ko nit ko bon la loolu yëpp neen ci d'accord ci benn point pour ñu mën a am benn <laughs> pour nga dégg ma bëgg a wax neen d'accord ne man dama al dama yàqu duma jullit xéeféer la damay xeex lislaam dama bon safara laa jëm yàlla bëggul ma lépp neen ci d'accord ndax yonent bi su ñëwoon Sénégal dinañ defaraat seen toogaay wi ou non ben ñaarel ba ndax yow ña 94 bi ñuy wax Sénégal ne julli le ndax gëm nga ko ñettel ba kan ci ñun mo fi amul non bo xamne ne bu sañon nga dé te julit la ku ko fi amul li lepp nak lay joy <laughs> mom lay wax man duma problème mais la may wax laa bëgg ñu adressé ko pour Sénégal bu gën mais mun ne yal na la yàlla fëggal sa bopp nga jub ci jàmm continuer sa liggéey xuusal te jàll am na ñu la gënoon mission dañ leen a rey noonu yàgg na fi mais projet bu jëmlewul projet bu jëmalewul Sénégal ci kanam bu yeboo mu siw mu xew du dem projet boo xam ne saaga ak xasta la agressé góor toj seeni oto jéem leen a rey fenal leen yàq seen der képp la foog ne ci nga mën a jaar ba jël nguur du dëgg senegal am na ay wootekat yu am fayda waaye am na ñaankat yu yàlla nangul am na boroom itte yu kawe te luñ bëggul ci réew mi yàlla mën na leen a jàppale ba du am kon mbokki may mun a yi yéen ñu waxoon ne mu ngi bàyyi diine yaayam waaye bu demee ci diine lislaam li koy metti ñi woote woo jullit ñoo ko koy teg maa ngi leen di wax ne am ngeen dëgg tey de waxuma lislaam dafa bon néew ma chrétien christianity moo ko gën waaye am ngeen dëgg tey ndax mosuma gis ku ko menacé publiquement téye caméra te fekk tuddut turi sell yi ñu xam ci lislaam te fekk du jullit yal na yàlla suturaal ko dimbale ko taxaw ko maa ngi bokk na moom naxar journaliste sénégal yi ah de leen tàqalikoo rek di fenalante ak jëwante de leen topp dërëm bi te baña eh, fonk seen liggéey te jàpp ko nii rek keneen a ji topp ci yéen ñaata nit ci yéen la ñuy jàpp di yóbbu police ngeen di ñaan ak a neexle ñaata nit ci yéen la ñuy jàpp en otage am lu ngeen mën a wax ak lu ngeen mënta wax ñaata nit ci yéen yéenay am lu leer war ko wax ñu dóoral leen enveloppe ngeen ne pat nopp ñaata nit ci yeen yéenay am taatu nit sa laaj ko xaalis pour baña publier ñaata nit ci yéen xarit tok ay animateur ay celebrity ay jet setter jet setteurs ay serigne di leen waxal yu bax lo xamne xam nga ne gëmoko sa micro rek nga am sa big bi rek nga am sa cadeau rek nga am lolu moy sa doole boko ñaké rek journaliste euh, fonku seen liggey ta japp ko ni rek ji top ci ñaata nit ci yeen lañuy japp jàpp di yóbbu police ngeen di ñaanaka neexle ñaata nit ci yeen lañuy japp jàpp en am lu ngeen mëna wax ak lu ngeen mënta wax ñaata nit ci yeen am lu leer war ko wax ñu dóoral leen enveloppe ngeen ne pat nopp ñaata nit ci yeen am taatu nit sa laaj ko purbanya pour baña publier ñaata nit ci yéen xarit tok ay animateur ay celebrity ay jet setter jet setteurs ay serigne di leen waxal yu bax lo xamne xam nga ne sa micro rek nga am sa big bi rek nga am sa kàddu rek nga am loolu mooy sa doole boo